am mbégte mu day tey ci jataay bii ñu ñëw ànd fekk Serigne Moustapha Guirassy di koo xam ne naka jekk miin na dëkk bi miin na yoon bi lool di taxaw taxawaay yu am solo ci wàll gii nga xam ne moom ngay soññee waxtu wu ne muy wàllu xam-xam mu yàgg ci taxaw sa liggéey bii bi ñu ko tàmbalee it daanañ ci jokkoo moom daanañ ci jokkoo ak moom baax ci waajtaay wi ñu ngi tëral tëralin yëpp ndax jàngukaay bu mag lay yoroon xarañ ci lool itam tey nag mu ñëwoon fii ci ndigalul ay kilifaam ngir di la yëgal si jataay bu am solo boo xam ne sab jataay la ndax jataay bu alquranul karim la jataay bu ñu terale ñooñ quran alquran la jataayu sëriñ daara yi la te kon yaay sëriñ daara bu mag bi ndax alquran mooy alali sëriñ bi mooy léppam daaw ñu defoon ko mu doonoon jataay bu am solo daje woon ak mboolem sëriñ daara yi waxtaan ak ñoom déglu leen ñu wax seen lañ bëgg ñu am digge yu ñu fa digge woon yàlla dogal nag ñu dem ba waxtu woowu di dellusiwaat mu ne bala ñoo tàmbali si boobu bis boobu dana def ni nga xam ne noonu la defoon daaw boobu Cheikh Oumar moo fi nekkoon ñëwoon fii yëgal si la ko waxoon la ko nga taxaw ci taxawaay yaa ngi taxaw te yàlla dogal moom mu yor liggéey boobu yi mu nekkoon nag day ñëw yëgal la ko sàkku ci ndigal sàkku ci ñaan ci ndigalul ay kilifaam ndax alxuraan daal képp ku koy teral wala ñooñu alxuraan yaa ci jiitu waaye yow la koy defal ndax ñooy sa njaboot képp kuy tagal teral boroom xam-xam wala muy teral xam-xam day mel ne yow la cay wuutu ndax moo loolu mooy sa tool boo xam ne ci ngay xëy waxtu wu ne ñu lay seedal nag moom ak cant ci taxawaay yooyu ma wax yi jiitu woon ci ànd ak noonu ci liggéey bi waaye bi yàlla dogalee ñu dénk ko liggéey bi itam ci ndigalul ay kilifaam yitte yu am solo muy taxawaay boo doon bu bokkoon ci wàccaay wu njëkk woow yi li ñuy tuddee école Touba ngir daa école yi fi nekk yëpp ñu nos ko waaye seet li nga xam ne manqué woon na te mënu cee ñàkk ñu dugal ko ci mm-hmm. mu njàngum diine mm-hmm. ndax dëkk bi moom léppam diine la mm-hmm. doom Sénégal yi it yàlla dafa dogal ñuy niti diine kon ku leen di jàngal diine mënu caa ñàkk wàll ñoo am lu ñu waajaloon nag ci dëkk bi ci sa liggéey bu màgg bii mu aju ci moom waaye da ko daal di def nañ ko bëggee muy joxe ci ndigal wax ne nañ ko jëfandikoo te mboolem école yi na ci biir Touba nañ jëfandikoo loolu waaye ñi nga xam ne ñoo fi nekkal fi li mu jiite itam nekkal fi ngóor gouvernement bi yor wàllu njàng mi nañ ko ànd ak ñun ñu taxaw ci taxawaay ya ba ni nga ko bëggee ñu mën koo jëfe noonu te loolu njariñul askan wi rek la te waajtaay la boo xam ne jàpp nañ ne benn gox moomu ko benn dëkk moomu ko waaye askanu Sénégal a ko soxla wàccaay bi loolu lañ ci seddoo woon dañoo càmbar njàng mi xool li ci manqué te mënu ci ñàkk ñu fexe kem kàttan dugal ko ca waaye nag di ko gën di yokk di ko gën di yaatal di ko gën di dëgëral ba nga xam ne daal dana mel lu nam war a mel loolu daal moo doon ay tànkam tey mu ne ma ñu boole kooku jiital ak ci ab siyaaram ok waaw waaw ànd ak soxna maam xarit moom itam nga xam ne moom mooy moo koy taxaw di ko jàppale ci wàllu googu bu baax baax di la ziar bu baax alhamdulilah rabbil alamin sant suñu borom alhamdulilah eh, sant ko bu baax ndaxte li yombul wante borom bi yombal na ko eh, alhamdulilah mu nekk jotaayu lislaam jotaayu alquran jotaayu këru daara te lii sunu tànk mooy eh, président de la république yebal ñu fi ak premier ministre am ci tur gouvernement bi bis boobu ni ko sëñ bi waxee sànq mu nekk bisu alxuraan bisu lislaam te sant suñu boroom bi état wu Sénégal demee bu gis ni école ni mu meloon euh, nekkul di defar suñuy doom te su yàggee ñu jàpp école googu rek xëy na li mu yàq euh, dina rëy lool te xëy na mu nekk ay rëccu-rëccu ba tey ji alhamdulilah mu nekk troisième édition ñu bëgg jox jëmm lislaam jox jëmma jëmmal gën a jëmmal lislaam jëmmal alxuraan jëmmal euh, daara yi moo tax mu nekk euh, bis boo xam ni daara yaa ko moom. Euh, Sénégal ak état bi ni mu meloon. Euh, jigéen ñi am nañ seen wàll. enfants yi am seen wàll ku nekk am na bisam wante nag daara yi musuñu am bis boo xam ni journée boo xam dañ koy célébrer au niveau national. mu nekk bis boobu. wante dafay nekk point de départ bu am solo. tàmbali bu am solo ubbeeku bu am solo moo tax état bi def lu mel noonu. wante def su ko defee tamit euh, légitimité bi euh, yéen ko koy may ndaxte yéen gi lu muy mën a rëy rëy rëy euh, soo leen fa teewul seen baat egg fa jëmmal bis bi rek du du du du ñu am lu ñu bëgg. moo tax bis boobu ñëw fii sàkku ci yéen ay ñaan ak ndimbal sàkku ci yéen ngeen jëmmal bis boobu. xam naa ni euh, sa jot doo ko am xam naa ni yan bi diis na lool wante say représentant ak ñoo xam ni mën nga leen fa yebal mm-hmm. ñu xam ni euh, tuubaa teew nañu xam ni teew ngeen fa ndaxte kat euh, réew mi yéen a ko yor réew mi kenn mënu ko defar te jaarul ci yéen te école foo xam ni fa la ñuy tabaxee doomu aadama lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la te xale yi dañ leen war a yar école nu mu mënti dem maternelle ba ci kaw war nañu jàng diine war nañu fonk diine te daara yi nag ñoom dañu nekk ci taxawaay boo xam ni ñooy euh, yar di yar ruu euh, di yar tamit xelu nit di yar jëmmam donc daara yi dafa am taxawaay bu am solo boo xam ne am nañ ko wante euh, daara joo xam ne tamit dafa war ubbeeku ndax àdduna day dox jamono day dox kon tey jii Euh, bërëb bi ñu nekkoon ñoom ñoo war a jël seen place ñoom ñoo war a euh, toog seen place ñoom ñoo war a yor système éducatif bi daara dañ fi war a dañu war a jël seen place bu baax a baax a baax kon bis boobu président ci boppam day ñëw ak gouvernement bi euh, ñu doon sàkku ci kilifa diine yi borom daara yi ñu mu nekk occasion boo xam ne nañu waxtaan ak. Euh, chef de l'État waxtaan ak gouvernement am lépp loo xam ni mbébétu borom daara yi la mu ñu am yaakaar ni bis boobu dina mën a saafarawu ndaxte problème mu tool dinañ koy wax ku am daara rek am nga problème mu tool ku am daara am nga problème pour liggéey formation professionnelle bis boobu ñooñu ñëpp dañu leen bëgg indi pour ñu dégg euh, lan mooy mbébétu borom daara yi naka lañ leen di mën a jàppale pour liggéey gi nga mën gën a mën a jëm kanam kon sëñ bi ñëw sàkkuwaat ñaan ci yéen ndimbal ci yéen tàllal suñu loxo ngeen jëmmal bis boobu eh, ndaxte bisu lislaam la bisu alxuraan la bisu daara la ngeen jéggal ma ci kàddu yi macha allah leen sant bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf leen ko bëggoon a dégg. jërëjëf jërëjëf dégg ngeen kàddu yi bu baax a baax a baax a baax xam nañ jublu gi itam ba tax na am nañ mbégte mu rëy te itam suñu yaakaar dolli ko na bu baax a baax eh, li ñu bëgg te mën nu ko ñàkk it sa jotaay bi tax na su xel gën cee daal. ndax bis boobu nga wax eh, fa tabarakallah bis bu bis bu bis bu rëy la bu bu yaatu njëriñ la eh, kon incha allah eh, sëñ Amadou dégg na ko noonu ni nga ko waxee rek daan koy defee ni noo bëgg nu taxaw ko nag noo noo noo bëgg nu taxaw ko ni rek daan ko ci taxawee daan ko ànd ak yéen incha allah loolu moom fa tabarakallah su ko seetlu guy waaw dégg na ni nga wax bu baax a baax a baax fekk na ñu xam taxawaay bi sax ba noppi waaye nag euh, kàddu yi euh, gën na ko leeral euh, dégg nañ ko bu baax suñu yaakaar dolli ko na suñu xel gën na dal jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf incha allah ni nga ko ni nga ko bëggee rek daañu ko ne defee incha allah suñu kéem